lan moo tax aadama ak sëram bi di ayda mënaguñoo am bonheur seen biir néegu sëy ñu bëri dañoo jéppi bàjjen ci rôle bu muy joué ci série bi mbokk yi tey dinaa leen leeral loo leen mësta bàyyi xel ci série bi lee laataa loolu bu bëggee comprendre série bi bu baax a baax abonné laal cloche notification ndax boo vidéo bu buñu dugal ngeen mën see jot ci lu gaaw yéen ñi bëgg bokk ci groupe Amour Brigé mën ngeen ñoo contacter ci numéro téléphone bi ngeen i gis saay su nekk bés bu nekk dañu leen di indil série bi analyser leen ko ngeen gën ko comprendre bu baax a baax waaye it loolu leen mën a am ci vidéo bi amee leen ko ndax moo ñu may doole kontaan naa bu baax ci seeni j'aime mbokk yi gis ngeen kii moo di bàjjan muy jouer rôle bu am solo malgré nag boo koy gis ni ku bon nga koy tëkkaale mais askanu Sénégal ñu bëri dañuy juwaarle personnage ak personne personne nag mooy nit ki nga doon personnage mooy li nga xamante ne rôle la ñu jox la ko moom la bàjjan di incarné ci rôle bi lee moom nag mën liggéeyam ak mën rôle moo tax ñu bëri jëpp ko dañu ne nit ki rôle bi nga jox tànk nit ki gisula la ci bëgg la wala nit nit ki gis la ci bañ la boobu mën a góorul bi à 100 pour cent kon comprendre leen ko noonu que bàjjan nekkul nit koo xamante ne naturellement nii Siri Kase ñu dellu ci waat ci ñaari maak rakk yi ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngi dund lu doy ci sa biir néegu sëy waaye nag ñun ñëpp kenn ku ci nekk muy góor muy jigéen war nga ci mën a jàngat lu bari te nit lu metti metti dangay muñ ki nga xamante ni moo di aadama lañuy ñuy njëkki gis ngeen ko ni muy doxalee ci biir néegu sëy ndaw la ñu maye ko li muy dund bëri na ñu koy dund ci réewum Sénégal moom moo di mariage forcé moo tax ñuy incarné ko moo tax série bi dañ ko war di ko teg kenn ku ci nekk di ko seetaan ngir nga ciy mën a jàngat li muy dund bari nañu koy dund muy mariage force yenn saay nag dinañ ne xol du bëgg di bañ jigéen du bëgg day miin loolu yéen laa koy laaj ndax dëgg la am déet tôt ou tard Adama mën na bëgg ki nga xamante ni moom di jëkkëram ndax jëkkër ji daf ko bëgg loolu ci benn côté d'accord naa boo amee jëkkër ju baax am jëkkër ju la yërëm pour nga bëgg ko lu yomb la mais est-ce que li am ci aadam moo na am ci ayda déjà jëkkër yi yërëmu ko déjà jëkkër ji tamit nekk na loo xam ne daf koy dóor tout le temps loolu moo ko tëkkali ak ki nga xamante ne moom moo di sërëm bii di aadama aadama dañu koy dóor tout le temps ah, awa mm-hmm. mm-hmm. di ma sant ndax lan juróomi weer ngi nii. Hmm. cinq mois yoo xamante si nii. Hmm. jëkkëram da kaa war ginnaaw mu si uti ñaan. ñaan hmm. lu na sëriñ bu ne dem na ca. la ilaha illallah. bi ñëwee ci bi mu ko defalee. damaa damaa woo paas ma borom këram. la ilaha illallah. ah sant allahu akbar. te xam xam-xam bu ma yàlla may mu si dimbali doomu aadama yi rek damaa nooma nooma noom ba ñëpp jàpp ne man nopp rek laay liggéey la <laughs> il wax nga dëgg de ndax ñi may woo naan ma sëñ bi jox ma numéro sëriñ Fallou xaw ma ñaata la ba ñi may waxee yow am nañ appel ki gën a soxla nag mm-hmm. mooy ki nga xamante si nii mm-hmm. ba sonn mm-hmm. mën ci man xolam dina set la ilaha illallah preuve wóolu li may def mooy tax dama naan la seeru si tàng mu tabi man ngaa gis sëriñ bu def loolu. mosuma koo gis wax dëgg yàlla nag man dama koy def ngir wóor li may def. la ilaha illallah. noonu yi moo laaj loolu. Mm-hmm. sëy am nañ problème. Mm-hmm. relation yi am nañ problème. Mm-hmm. waaye man képp koo xamante si da ngaa bëgg niw. nga am yéene takk ko. wala nga nekk sa jëkkër wala nga nekk sa soxna. nga bëgg seen diggante gën dëgër. tawar naa si. di jë. jamono ji ku bëri wu ñu daan sa dëgg la. sëy nañ leen di nopp. Mm-hmm. jigéen ñi nañu nopp seen i jëkkër. Mm-hmm. ngir ñu bëgg leen. Mm-hmm. góor ñi nañu nopp seen i soxna ngir ndax maanaam diggante yooyu li fi nekk dafa am dafa dafa bëri. muy lan. jafe-jafe yi fi nekk. muy lan. ba bañeeli ci biir. ñi ànd ñi ànd ci ñii di xeex. léeg-léeg say mbokk goro duñ la bëgg léeg-léeg say njëkk duñ bëgg léeg-léeg sax say mbokki jabar duñu la bëgg. moo tax man ni ab sëy dañ koy nopp. wala léeg-léeg nga am borom kër wala nga am jabar kenn ku ci nekk yor xaalis du jox moroom.